اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal xaq di leen baal xaq ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole nu baal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal nu tawfiq ak taysiir di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal nu saadatu daarayn di ziyaare Seydi Ousmane mi ñu seqal liggéey bi di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ko tawfiq ak taysiir waaye di ziyaare suñu sëriñ jaara muallim cheikh xalifa njaay a tiwaawan ñoo ngi koy nuyu di ko ziyaara di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu guddal fanam yokk wér-gu-yaram waaye di ziyaare mbooleem ñooñu daara ñi nga xam si nii ñoo féetewoo leeral diine ji yàlla borom subhanahu wa taala fay yàlla borom subhanahu wa taala kartanal leen bu ko defé yeen ñi nga xamé ni yeena top programme bi nga xam si ni moy seen diiné ñu ñëwaat ak yeen si walum sey ak yasa and tay nak ñoo nga wara a si lii wax al adlu manu manu gogo nak moy manu gi nga xam si ni dafa war jëkkeer mu def ko si diggante ay soxnaam maanaam boo yoree ay soxna benn soxna wala ñaari soxna wala ñetti soxna ba ñeent islaam dafa farataal si yow nga maanu seen diggante alquran wax na ni du ngeen am kartan di maanu si diggante jigéen ñi maanaam maanu xol nga yemal leen si seen xol kooku moom kenn amu sa kartan ndax yàlla moo moom xol mooy def kii ngay gën bëgg kee doonte sax xër ngeen si bëgg yemale si xol du ngeen ko man waaye nag bu leen jéng jël sa genn soxna si teg ko sa kaw geneen gi nga mel ni def ko yére boo wékk kooku islaam ŋàññ na la loolu alquran tere na ko bo démé sa téré bi ñuy wax al muqaddima al izziya ya naa ñi nga xam ci ni ñoo nekk ci masabu imam malik min nañ téré bobu da nga fekk mu ni man kana mutazawijan bi imraatayni aw akthar képp ko xam ci ni da nga tak ñaari soxna wala lu ko ëpp soxna yoyu mo xam ay gor lan wala ay jaam lanu jaam mo bëreetul léegi waaye ya, jamono yay jaam am ni nga xamee ya ni dagan na nga takkee ko ay gor ñoo xam si nii nekkunu ay jaam noonu la daganee nga takk ay jaam waaye nag soo yoree loo xam si nii man nga koo cenee ya gor sim na ngay dem di tak ab jaam waaye li mu bëgg a wax ni bu fekkee da ngaa takk ñaari gor wala ñaari jam, wala ñoo xam si nii ay ahlu kitaab lan ay chrétien lan ndax mazhabu imam malik dagal na dagal na la nga takk ab chrétien dégg ko sa aaya ja wal muxsanaat min alladina utul kitaab ñi nga xam si ne ay gor lan bokk si ahlu kitaab dagal na nga takk leen boo si takkee nag maanaam boo takkee ay gor wala nga takk ay jaam wala nga takk ahlu kitaab yow jëkkër ji war na si yow nga maanu seen diggante nga maanu seen diggante maanu ga mooy bu fekkee sa wàllum ay yàlla nga maanu sa boo joxee kii benn fan jox kii benn fan soo joxee kii ñaari fan jox kii ñaari fan na koy séddale na nga sa séddale séddale bu maandu sa ay gi ku nekk ay gi nag nekkul guddi képp waaye guddi la ak bëccëg la bu fekkee liggéeyoo ki nga xam si ni moo aaye bis bi guddi ga si moom nga war a nekk bëccëg ga si moom nga war a nekk waaye kii aaye tey bëccëg ga nga dem tëdd sa kër wujj wa guddi nga ngay doog a ñëw si moom loolu soo ko defee yaa def loo xam si ni lu xaraam la moo tax borom muqaddima nee na booy séddale bi lan la bëccëg la ak guddi du guddi kepp ay gi du guddi kepp waaye guddi guddi la ak bëccëg ba tax na bu nee nday moo aaye tey ndey moom moomay bëccëg gi moom moomay guddi gi danga nga ko féete si këram bu fekkee ñaari soxna yi ku nekk da ko wutal kër nga wutal faatu euh, kër wutal nday kër bu fekkee nday moo aaye tey bëccëg gee guddi gi yëpp moo ko moome bu fekkee liggéey joo bëccëg gaa guddi ga nanga nga féete foofu bu liggéey ba kee aayee bëccëg gaa guddi nga féete foofu waaye nag kii aaya aawa bi nga dem sa ñaare ba tëdd fa tëddi fa ba vingt deux heures ngay doog a euh, wuti aawa wanaa ko yaa aaye kooku nekkul séddale bi nga xam si ni moom la islaam euh, sant moo tax boo demee mu borom muqaddima nee naa soxna si nga xam si ne aayewul boo fa soxla woon dara sax mel ni nga fàtte fa sa dara dun la may nga mën a nga dugg si néeg bi di jël loola waaye na nga taxaw si buntu néeg bi Dan ne ko nangam ak nangam la fi soxla mu jox la ko nga delu fa nga ay way islam dula may ngay dugg si neegu soxla si nga xam si ni aaye woo fa borom xadima ni fala yadkhulu li hajatihi bum dugg si neegu ki ay wul ngir ajam lan ngay def nga taxaw si buntu neeg bi ni ko nangam ak nangam la soxla si neeg bi mu jox la ko nga jenn ba malu, na maanu Islam, dan ni dafa war jëkkër mu def ko képp ku ko weddi dal ni dal manu wuru ku la neex ngay fanan comme ni ko ñen gi waxee nee na képp ku ko weddi koku ab yéefar la yéefar la sa atte bi yéefar moy lan dañ koy tuulo ñetti fan su tuubee fa lay xam ne nu gëna mu ñëwaat bokkat si jamaatul muslimina wal muminin bu fekke tuubul nak Islam lay até si mom ñu ray ko ray gogo nak até bi yéferal ray wi yéfer la lool la islam wax sa loola bu ko défé ba islam da fay may yow mi nga xam ci ni ya tak ab sét sét ba mo xam jankala wala jéeg la jànq moy ku musa a khairi wala ak ndawam mi ngi si mom jeeg moy ko xam si ni ak ndawam dem na ñooñu bo sa takke islam day am ay fan yum la may ni mën nga sa féetee ak mom sa do jox way waye ku nekk nak mo xam jaq bi nga tak wala jek bi dafa am fan yu la islam may yo xam si ni maynal la may nan la nga sax sax xam si ni mom rek sa sur si mom ngay dem ba kera fan yay jeex ngay dogo a la war ay dogo a commencé jox wuju bu fekke ab jank nga nga tak moy ko xam si ni ak ndawam mi ngi si moom masala mu dem fi Sénégal ñu musa am jëkkër ak ndawam mi ngi si moom islam da lay may boo ko takkee nga sax si moom juróom-ñaari fan yoo xam si ni chaque jour si moom ngay fanaan sa guddi ak bëccëg mën ngaa féete si moom sa doo jox wujj wa ay kooku islam may na ko bu juróom-ñaari fan ya matee nag di fani séet ba fani set gi bu ko defé bu la e nexé man nga commencé wala bok fanata la nga commencé wat ay ku nek bisab bu fekkee nak ab jéeg nga tak ko xam si ni ak ndawam dem na ak ndawam nekul si mom soko ko islam dana la may nga sax si mom ñetti fan nga sax si mom ñetti fan ñetti fan yo bu maté nak nga commencé wat ay gi ku nek nga jox ko ayam kon noonu la ko islaam séddalee waaye nu la nga yor ñaari soxna takk ab euh, ab séet rek am fa weer kooku moom islaam du la ko may soxna si nag wujj wi bu ko neexee ñëw si daan si si ñëw si jëkkër ji wala si euh, wala mu ñëw si wujjëm ni ko may may naa la weer may naa la weer ñëw si wujjëm ni may naa la weer maanaam euh, borom kër gi bu ko neexee mën naa sax si yow weer doog maa jox ay kooku dana dagan Suni sauda Sauda, dafa mayon mayon na ayam yaayam Aisyah ishamma khairul baraya ha jangalat manabaha limasafatin ani tuhami borom khilaf do la wax suñu yayi sauda ba yéen sa salam yitteewoo lam yitteewoo sa mom dane uh, ko bayima mak ay may ko Aïcha mu jël mayam mu jël ak ayam may ko Aisyah. kon loolu dalil la seni soxna bu ko nexé man na jël ayam may ko morom jigéenam bu ko défé borom kër ga di fété wo sa lola bu ko défé mbokk juliti inshallah ba ajma bi ñu jëm ci suñu waxtaan wi gi nga xam ni ñu ngi koy séx ak yeen ajma euh, bu jot wassalamu alaykum allahumma ij'al akhira kalamina min ad-dunya la ilaha illa allah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم